بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب أعوذ بك من أمكات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب إني نصرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ñu ngi bëgg a tàmbali jëpp saani bi nga xam ne ci muxtasaru xalil moo andi lépp lu aju ci muamalaat jëflante diggante doomu aadama yi ci seeni mbir moo xam loola dafa jublu ci wàllu njaay ak jënd wala mu jublu ci wàllu tayle ak lu mel ne moom fiq bu fiq bi gën a soor nga xam ne mooy atte di xaaji atte mbiram loolu la saani defar mu nekk mbir moo xam ni ñu bare bari wumpule nañ ko defe ne lislaam dafay diine joo xam ne dafa yem ci julli rek ak woor waaye fekk na mu amalaat muy jëflante ay ci dikk sax boo ko seetee la ca yàlla leeralee mbiram ba dafa mel ne moom la gën a moo ko gën a ñor ci wàllu détail yeneen xeeti jaamu yàlla yi ndax loolu da nga ko gis ci miraas ñu ko yàlla séddalee gis ko ci wàllu xisaab ci aayam bu ñu ci àggee insha allah danañ ko leeral gis ko ci wàllu riba ni ko yàlla teree ci alquran min xëyri ayatin wahidatin ci lu dul jenn aaya kepp fu nekk mu tëkk fa tere kuy lekk riba te riba nag du mën a amee lu may njaay ak jënd ak ci lu ci aju kon fokk nit doomu aadama yi ak jullit yi xam li leen yàlla tere ci seen jëflante bi ñuy doxale seen diggante ndax ñu mooy ko ko riba moomu nga xam ne day yàq jëfi doomu aadama cippi ko ba mu yàqu nga xam ne la nga jaamoon ci yàllaa kas néew ba defee ne loola am na njëriñ boo lekkee riba mën nga koo ñàkk wala boog yool ba dootu bari kon mooy ko riba farata la mooy ko lu araam farata la topp ndigalal yàlla ci bépp jëflante ci julit farata la sunu borom subhanahu wa taala dafa ne yéen nit fala wa rabbika laa yuminuuna xatta yuxakkimuuka fii ma sajara baynahum suma laa yajidoo fi anfusihim arajan mimma qadayta wa yusallimoo taslima giñ naa ci sa borom nit gaa yi duñu gëm mukk mbata ñu atte loola lépp lu nekk seen diggante kon loolu wax la lépp lu nekk seen diggante yonent bi moo koy atte kon lislaam mayul keneen ku dul yonent ngay atte kenn di tëralal jullit ñi ay atte ñu di ca jaar di ko gëm loolu échec la pour jullit ñi waaye xamoon seen fekkul muamala bi nga xam ne moom la leen yàlla digal loolu moom la ñuy amee tiyaaba ëllëg ci la ñuy amee daraja ëllëg ci kanamu sunu borom subhanahu wa taala kon nag nu fas yéenee dugg ci jëf ku saani bi di wax ne yàlla laa ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim ñun xamuñu dara yow dong yaa xam di wax ne yow sunu borom subhanahu wa taala noo ngi nii di ay jaam yoo xam ni tàllal nañu loxob toroxlu ak loxob ñàkk ak loxo aajowoo jëm ci sa yërmande yàlla na nga ñëpp ci suñu loxo jàpp yërmande ak jàpp gindi teg na ci yoonu njub bi gën a rafet ci yoon yi te musal na ci mboolem ay njuumte yuy waral ak dellu gannaaw te teg na ci sawaab boo xam ne day waral ak avancé ci barke yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon bismillah sunu borom nee na wa ahla laahu al-bay'a wa arama riba fa man jaa'u maw'izatin min rabbihi fantahi fa lahu ma salaf wa amruhu ila allah kon baabul yan aqidu dana fasu al bay u njaay dinaa ci lépp loo xam ne yëddulu dana mu tegtale àlari daa ci nangu wayen bu maatan doonte jokkalante la kon nag njaay dana fasu ci jëf ak jëf dangaa yëkkati jox waa ji mu jox la filaasi njaay dana ci fasu wa dana fasu njaay bi bii ni ji def jaay ma fa yoqul mu ni ko biitu jaay naa la kooku njaay dana ci fasu kon da ngeen a waxaale kii def ko ni jaay ma mu ni ko jaay naa la ci nangam mu yëkkati njëgga jox la nga yëkkati filaasa jox ko wa dana fasu njaay bi itta jënd naa weer daa d'accord laax ma morom kon yow mi jënd yaa wax yaa ko ñëw ni ko jënd naa lii ci junni mu ne la indi weer daal laa xam ca kanam si aw biitu ko wala jaay naa la lii kii jaay moo ko ne jaay naa la lii ci téeméer wala ci junni weer daal d'accord laa xam romb njaay dana ci le fii maa ci ñaari masala yooyu waaye wa ala fa juñet na moom aji jënd ja wa ilaa ndem juñul la ci ma war njaay ma in kaana ndem wax na wa ala fa juñet na moom aji jaay ja wa ilaa ndem nanguwul a juñ la ci ma war na njaay ma in kaana ndem wax na addi ko daal la ko jaay bi kasaa ci nangam aji jaay ji def la ni kaay ma jaay la xar mi ci junni dégg nga de nga ni ko ay ta d'accord naa mu wëlbati ko ne ah jaayatuma ñu ni ko giñal ndax l'islam moom bëggul kenn koy waxi caaxaan dañoo bëgg lépp looy wax mu dëgg ci yow dégg nga de aw ana man wala yow mustari nga ne ko man astariya danaa jënd xar mi bi ji ci junni nga ne ko man danaa ko jënd ci junni silaat mu ne la ah andi sa junni nga ne ko déet dama doon seet ba xam sama junni bi mën naa cee am am xaram de kooku su boobaa kon ba tey da nga juri aw ta sa waxa wala mu jeyal moom aji jaay ja daa ca silaata fa xaala wax aji jënd ja bi kam ñaata nga koy jaaye fa xaala mu ne ko bi meeti ci téeméer ah fa xaala mu ne ko ah sa dinaa ko jàpp ci téeméer ah looy jaaye mu ne téeméer nga ne ko jàpp naa silaata ci téeméer wëlbatiku nga ne nanguwuma lool nga wëlbatiku bëgg a bàyyi ah da nga jën ñi ni dama doon dama jubluwuma ci woon jënd sëriñ bi nee na ma sartu axir yi sarti aji fas njaay tamit suñ mooy jaqee ñu génnee sa idu sarti yu gone bu jaayee njaay na yorul ixmaaru ku itam bu jaayee njaay na yorul junoonu ko dof bu jaayee njaay na yorul ilaa di sukkuri nga ñàkk jaqee ga dafa amee ci mandi si ku mandi nag dem jaay te sadul am nañ deng deng ci njaay ma dina wér ak ñàkk gaa wér nga ne wala soo mi sarte na ci war sarte waru njaay taklifun mooy mu kallaf mu kallaf mooy jaay kon waaye gone bu jaayee wérul illa dégg nga de waaye laa laa du war njaay na in udbira dem forcé na ko alay joom jabran ak forcé araman gu aram te mooy waaye ñëw forcé la rek ëpp la doole ni la da nga ma jaay te lii nga bañ bañ mu jël kooka njaay ma warul su boobaa nag warul da dellof na lu ñu jaay la alayhi waral bàyyihu ka ñu forcé woon jaay si daan bis na ko ko delloo ndem njëgg dafa sànku bi laa sama niñ ci dul njëg même yow mi ñu forcé jaay sa yëf su fekkee njëgg yàlla dafa dogal mu sànku ci say loxo def na nangu si laata delloo ci la te doo fay njëgg nga ne wa ma daa wéet na njaay ma fi jabrin amil ci forcé buur julit mu forcé jaraaf aji manam maanaam jaraaf mooy koo xam ne buur a ko fal su fekkee dafa def loo xam ne dafa waral ñu war a jaay alalam buñ ko forcé jaay ba njaay ma wér na nga ne wa mu ne atref na ba yu muslimin jaay julit li ka jaay jaamu julit li kaafir ñeel yéefar jaamu julit tere nañu di ko jaay li kaafir ñeel yéefar ci kanam wa mos atin mos af tere nañu di ko jaay li kaafir ñeel yéefar wa taqirin ndaw jàmbu ndaw tere nañu di ko jaay li kaafir yéefar kon jaamu julit kenn du ko jaay yéefar mos kenn du jaay yéefar jàmbu ndaw kenn du ko jaay yéefar woo bi reporteef na yéefar ala ixraaj yi ci génnee da nga de jàmbu julit ba bañ ko jaay benn biir kenn ci goreel aw hibatin wala may dañ ko naan nanga ko goreel wala nanga ko may walaw li wala di doon daf koy may doomam saxiri wala di xaar doon koy may doomam saxiri jën aji ndawe wér na alal la dee ci wax ji gën a lëng loola mooy lan catholique bu jigéen am jëkkër julit jëkkër ja am an am ak moom doom su amee jaamu julit ñu ni ko sa jaam bi na jënd sa loxo ndax julit bi yëfar du ko moom su ko neexee mu ne may naa ko sama doom ju ndaw ji waaye laa di ci taabit waxuma jotoo de jaamu julit bu ko yëfar moo ne ñu ni ko na jënd sa loxo mu ne damay jotoo ak moom duñ ko nangu war a nin ak tayle mu dem di ko tayle ji ñu ni ko déedéet bu boobaa bu fekkee da ko tayle waataa di kéet na moom yëfar ba di leen ci tayle si xëtun guy ndëgër laay tey ñu génnee jàmba ci loxoom ne ko na ko goreel wala mu def ko leneen seen anima dem xam na murta inoo kam ko tayle woon bi islamique ci tubub jàmba yëfar bi dem na tayle jaamu julit murta in xamoon nañu jaam bi julit la kon nag su boobaa ñu ni ko demal indi geneen tayle te jaam bi nga génnee ko solo sartu ñaareel boobu lam yu ayin ci ràññeewu ko woon moom murta in wa ilaa ndem daf ko ràññee woon ni ko jaam bi nga may tayle ko jële gaay fay bor ba mu ñu ko gaawal fay bor bi daan dañoo fay jóg bu ko defee mu dem jëli moom yëfal ba fay bor mu ne kay kay nit ki goreelam yëfal bu fekkee dafa tayle woon jaamu julit ñu wax ko mu ne goreel naa ko ñu ne ko gaawal fay bor bi mu dëddal ko tëf nga ne ba jaata dagal na radduhoo delloo jaamu julit alayhi waral yëfal ba ñu tënke ka ma mu kaafir dafa am jaamu muslim jaay ko muslim julit ba ba mu ko jaay gis ci ayib bu ko neexee mu delloo ko yëfal ba bu ko delloo yëfal ba ñu ne ko ah génne ko sa loxo bay jëm ci saabu si ayib mu ngo nga ne wa ndeem jaam ba dafa tuub ci xiyaari muslimin ci xiyaari mustarin ci xiyaari mustarin aji jënd muslimin koy jullit yom xalu lañ koy ndànkoo li nga ba ca jeexu diir ba ñu tënk ka ka mun kaafir dafa am jaamu kaafir jaay ko muslim dam ko ko jaayee njaayum xiyaar yàlla dogal yéefar ba tuub ñu ne ko ah léegi nañ xaar bu xiyaar ji jeexee jullit bi jënd ñu ne alhamdulilah jullit moom na jullit dara nekk ci su xiyaar ji jeexee te jullit ba delloo yéefar ba ah su boobaa ñu ne ko na nga ko génnee sa loxo moo tax yom xalu li nga mooy soo jël dem na sax koo gaayoo nag alkaafir yéefar ñu tënk kaka kakakun kaafir moo am jaamu kayfa jaay ko kaafir njaayum xiyaar yàlla dogal yéefar ba tuub seen bi jënd ah su ka jëndoon wéelee ñu ne ko na génn sa loxo bu fekkee delloo na ka jaayoon ka jaayoo nit ñu ne ko génneel sa loxo mu ne kaba yi ni ki jaay jàmba moom itam yéefar bu fekkee da nga kaba yi ni ki jaayam moom itam ngay wax jaam da da jaamu yéefar def na ko jaay su fekkee ni jul juli jaamu julit bi yéefar da koo moom dañ koy jaay ilas la ma ndéem tuub na jàmba maanaam jaamu yéefar boo xam ne julit dafa tuub ci loxo yéefar dañ koy jaay maanaam yéefar bi daa amoon jaamu yéefar bi yàlla dogal jàmba tuub ci loxoom buur julit day nangu jàmba jaay ko wa baw de tasori tay bët sëy bi fàddu sang ba yàlla dogal fekk sang bu yéefar ba tuub ñu jàmba tuub gannaawam ñu nangu jàmba jaay ko nga ne woon leen jàmba dafa tuub fi bàyyi in ci xiyaari bàyyi u may julit yom na u lañ koy teree mu ne indaay ci wéyal jàmba da nga de ñu tënk mu ka ka muslim dafa am jaamu kéefar jaay ko kéefar da nga de muslim dafa am jaamu kéefar jaay ko yéefar yàlla dogal jàmba tuub ñu ne ko deet nangul jàmbi delloo ci mooy mu ko ko jooju dégg nga de sëriñ bi nee na wa fi jawaas yi dégg nga de wa fi jawaas yi bay man mi ci daganu jaay koo xam ne aslama tuub na bi xeyaar njaayum xeyaar moo tax jaam bu tuub nga dégg nga de yéefar bi jaam julit dafa tuub ci loxoom ndax dagan na mu di ko jaay njaayum xiyaar ndax njaayum xiyaar dafa neex dégg nga de ak ñaar ñaar dagan crédit am nañ ci dégg nga de mu ne waa jaam yàlla man utaqiri tere jaam bu ndaw ah dégg nga de yéefar bi ko jënd xanaa isaalam yekkul ndéem nekkul ala diine mu sëri ci diine aji jëndal waaye bu fekkee yéefar bi yëxoot la jaam bu ndaw bi di yëxoot mën nañ ko koo jaay wala yéefar bi nasaraan jaam bu ndaw bi nasaraan mën nañ ko koo jaay aw wala moom kay tere nañu jaay jaam bu ndaw yéefar mutlaxan moo xam ñoo bokk diine wala bokkuñu diine tawi laa ne am na ñaar jamtal ci kanam dégg nga de waaye nag ba nga déggee ñuy tere jaay jaam bu ndaw yéefar innam yëkkul ndéem nekkul maa woo di ànd ak jaam ba abahu bàyyi waaye jaam bu fekkee jaamu yéefar la bu ndaw ànd ak bàyyi yéefaram mën nga koo jaay nga ne wa jabruhoo force yéefar mën naa maanaam mën nga koo jaay kum bokkal diine nga ne wa jabruhoo force yéefar mu génnee jaamu julit loxoom tahdidun mooy kupp wa darbun ak dóor am ñu ne wa jabruhoo force jaam bu ndaw mu tuub tahdidun mooy kupp wa darbun ak dóor wala hoo ñeel na ko moom yéefar si raaw baalikin jënd aji jënd ala diine koo xam ne ñoo bokk diine xam nga yéefar dañ koo tere mu jënd jaam bu ndaw ndax dañuy bañ mu orienté ko ci diine waaye may nañ ko mu jënd aji jënd ju mu bokkal diine len aqaama nem sax na bii ak aji jënt jooja ci réew mi yëfal waaye laa xëy yi waxuma kudul aji jënt ju mu bokkal diine alal muxtaar ci wax jëm tànn kon maanaam aji li mu bëgg a wax mooy koo xam ne jaam bu ndaw la ku mu bokkal ku mu bokkalul diine mënu koo jënd wasaxiri ak jaam bu ndaw kon wasaxiri bu ne dagan na mu jënd aji jënt ju mu bokkal diine laa xëy yi waxuma kudul aji jënt kon mooy ku ndaw alal muxtaar yi daganul mu di ko jënd wasaxiri kon ak ku tafsir la ndax laa xëy yi mooy kudul aji jënt ko dul aji jënd nag mooy bone kon wasa xëri ak ku tafsir la alal jee ci wax dëgg na lëng yéefar daal daganul mu jënd jaam bu ndaw di ko orienté ci diineem loolu la ñuy bañ nga ne wasu rek sarteef na li ma ko ñeel lépp lu ñuy fas njaay alal muxtaar sax ñu tànn jàngo imaam la xam ne mu jël ko ci wute ba nee na wasu rek sarteef na li ma ko di dégg de wasa xëri ak jaam bu ndaw alal jee ci wax dëgg na lëng si im yoonu suñu jëlee ko ci wute ba nga ne wasu rek sarteef na li ma ko di ñeel lépp lu ñuy fas njaay alal ci moom tali iquha tax nañ ko taaratu laab dégg nga de liñ ci faaw nañ ko mën a jëriñoo ilmu nañ ko xam xutaltu nañu am kattan ci jébbaleem adamu na yéen ñàkk a tere bu muy loo xam ne sari ada ko tere kon nag taaratul jàngoog laaka sa dinu ko mul deme ne ki nefray fas daganul jaay wasaytin ak jiw sana jasa goo xam ne sobe wala daganul jaay nefray fas yi nga xam ne moom la ñuy tase tool yi kenn du ko jaay de ndax moom sobe la wan ci faawul sat nañ ci lépp loo xam ne dañ koy jaay inti faawul jëriñoo kon laaka mu arimanu ko mul deme ne ki lu ñu araamal ni ki sàngara daganul jaay ak drog ak lépp loo xam ne dañ koy jëfandikoo tamit yàq xel asra laata mu arimi ni ko ma deme nekk lu ñu araamal asrafa loo xam ne sëpp na dee nit ki yàpp fas fas woo xam ne dee ca def daganul jaay ndax fas daganul lekk ci masu ñoom mali dégg nga de wa adamu na yéen ak ñàkk tere kon nag mu ne waaye laakal bi sëy dina ko ma xajurëbb xajurëbb daganul jaay ndax xajurëbb sariya def ko tere war naa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam an bayil kilaa bi yonent bi tere na jaay xaj nga ne wa jaata dagan na xirul jaay moos li jël din ngir atta dara ba ca kanam wa sakul dagana jaay ndeg nan li jël din ngir dara wa amilul dagana jaay aji biir mu xaribul kuri aji jegeñ jur donte aji biir musrif la xam nga jegeñ la mën naa dee ca njur ma waaye teewul dagan na jaay ndax li xaalis mooy mucc dama ne woon sàkk nañ ci lépp lu ñuy fas ngaay te aratullah wa qududul ak kattan ali ci jébbaleen dégg nga de kon nag laataa bi ki ma ko mënul demee ne ki jàmbu daw ndax mënoo koo jébbale wala waaye sa yoon njëgg ne la ana jàmba nga ni ko gisuma ko ah loolu xaral la wa ibilin ak jaleen uhmilat boo xam ne boyaleef na ko daganul jaay ndax mënoo koo jébbale wa maqsudin ak lu ñu fëkk loo xam ne dañ koo fëkk dem ak moom mënoo koo jaay ndax mënoo koo jébbale ilaa min qaasibin rek boo dañ koo jaay aji fëkk ji ka ko fëkkoon nag bu ñëwee ne la jaay ma ko dagan na mu ne waa jàmm yàlla ba nga déggee dagan na jaay aji fëkk la mu fëkk xanaa inor da dem delloo si ko dara bii ba ca borom ba waaye buñ ko delloo si ba ci yow sax daganul mu datan ab diir am moom kay dagan na jaay aji fëkk la mu fëkk tara dun am nañ ci déng déng nga ne wala kaas bi ngeen laa ji fëkk naq damaa tiri la nga xam ne baaxoo jaay la ko boo fëkkoon tey sa fa su bàyyi dem jaay ko sa bàyyi dee nga donn ko bu la neexee nga dem te kan ko jaay ne ko firi naa njaay mi delloo ko njëggal jël ko in wari soon dem donn ko mu ngo waaye laay sra waxuma nem jënd na ko de da ngaa fëkk yëti jaamur dem jaay ko dikk jëndaat ko ci borom fañatoo firi njaay ma ñàkk nga nga ne woo ko fa taxawaleef na mar onun lu ñu tay la dem jaay ko alaale daa mu taxin yi ci nangu aji tay la woon yow da ngaa tay la saw fas ca magasin ba borom magasin ba lebal nga dikk nag jaay fas bi dañuy taxawal fasoo woo ka nga ka nga ko tay la woon bu d'accord ñu jël ñu jël ñu bàyyi ko mu dem mu def daynu bi laaraani su d'accordul ñu delloo si ko ci loxoom wa mil ki xëy yi dana taxawal moo ne lu keneen alaale daaw ci nangoom da ngaa tay la sa sa sa fasu rak su boobaa ñu ñu taxawal ko ni ko ah parce que kat du dem mbate sa rak d'accord sëriñ bi nee na aw walaw alima doonte xamoon na almustari aji jënd ja ni li lii nga koy tayle walaw alima doonte xamoon na almustari aji jënd ja ni lii nga koy jaay da nga koo tayle kon du tee dañ koy taxawal rek ba ka ko ba kañ ko tayle woon d'accord sëñ bi nee na woon abdi jaam jaam yi bu di aji bom gis na ko taxawal alaali daa mustayikaa ca nangu aji yeyam maanaam tey tey bu fekkee sa jaam dafa damm loxol doomu jaamu nga war caa joxe ca loxo ba ak tey dem daal di koy jaay ñu laaj ca mu damm loxol doomam bu d'accord ñu wéyal njaay ma waaye nag wa uli fa giñ loof na borom jaam ba ina du en deem wooyees na ali waral ko te daan nangoo joxew tey suñ ko su ko waajalee ah boo gisee ma lay bàyyee jaam bi kat nga njaay mi di continuer mooy da nga may jox ci njëgu jaam bi sama tay tay gi nga xam ne moom la def sama doom su boobaa bu waa ji ne waxu d'accordu ma woon ci loolu ñu ne ko giñal su ko defee su ma bu alal daal bil bayi sa jaay ga su ma lil mustayiq topp ñeel aji yey ja nag su giñee ni moom waxul woon loolu ah ñeel na ka yey jaam ba te mooy ka mu def mu loxol doomam raddu hoo delloo njaay ma in lam yetton jër gëñul loo ñëw ko asay bi sa nga ba ale sa tay ga ndem nangu koo joxub tay mu ne ko kon firi naa njaay mi ndax comme man la def infraction ah njaay ma di wéy te te te te te joxuñu ma dara al mu taw wala aji jënd ja sañ naa yow sang bi ndem joxoon ko alis ak tay ci kanam tuuti al mu taw wala aji jënd ja jox ko alis ak tay waaye bu fekkee ka jënd jaam ba jox na ko tay ba tay baax na ndax yow sa jaam bu fekkee dafa dem loxoy sama doom léegi ki ñëw jënd ko daal di yëkkati tay loxo bi jox ma ah kon nag léegi moom yóbbu na jaam bi jënd na ko ci yow jox na ma tay bi léegi loolu baax na waaye wala xoo ñeel na ko ah moom ka nga xam ne moom moom mooy aji yay jaam ba te mooy kamu dama loxoy doomam ak sama ñuy jàpp njëgam dégg nga de njëgub jàmba bu boo ko jaayee te tàgguwoo ko bu ko neexee mu jàpp njëg ga war a àjjaloo ko nag al mu taaw ak jënd ja bii ca njëg bii ca tay ga aw di sama ñuy wala njëg xam nga ci jënd moom kon jënd na jaam bi ci yow wëlbatiku joxe ak tay léegi kon mel na ne ñaari njëg la joxe su paree nag dana del ci waat ci yow borom jaam bi nga jox ko njëg ga wala nga jox ko tay ga mu jox ka mu gaañu loxol doomam in kaana ndeen nekk na njëg ga akala di gën a ñëw tay ga su fekkee njëg gaa gën a ñëw tay ga nga jox ko njëg ga loolu lay doon moo tax mu ne war a jaxa denoot na moom aji jënd ja ka nga xam ne moo jënd almukaaw aji jënd ja bii ca tay ga aw di sama ñëw wala njëg ga in kaan dem nekk na njëg ga akala di gën a ñëw tay ga kon nga jox ko njëg ga su fekkee tay ga junni la njëgu jàmba di juróom ñetti téeméer mu del si waat nga delloo ko juróom ñetti téeméer ya ndax kon jàmbee la toon jàmbee def lu ëpp njëgam sëriñ bi nee na wali mu sëriñ nee na aji jënd jàmboo bu def jinaaya bi radoo ak delloom in kaama daan dem tay la ko yow nag su fekkee jaam bi dafa tay def jinaaya nga jënd ko ba noppi xamoo ko bu la neexee nga delloo ko sa nga wadu da delloo la albay u njaay ma fii ci ngi ñoom noonu laajri banoo dinaa ko dóor maa jëf joo xam ne bis dina dagal dangaa ji ñoom ñi ko jaam bi dinaa ko dóor ndax dafa def infraction nga jaay ma ko te fàtte ko danaa delloo ci jaam ba ba ci sang moomeel nga dóor ko ma doon koo yóbbu nga ne war du delloo na li muy kii ba ci moomeel mu ngo ba jaa sa dagal na bay umoo din jaay kenu alay loo xam ne kan ci kawam dinaa am tabax wax jooju fa la jeexee ba jaasa wax ju jóg na tey da ngay jaay kenn loo xam ne tabax li bàyyi ñeen aji jaay ja dagan na keneen tafan dem dàqu na al idaatu sànku ga waaye dégg nga de bu fekkee ni wóor na la ni kenn li nga xam ne mooy yenu tabax bi buñ ko buddee du yàq dara kon dagan na nga jaay ko wa nee na wa umina sàpp ñaareel ba wa umina te wóoloo kasroo ak damam sàpp nga teel ba wa naqaduhoo te buddi ko al bàyyi aji jaay ja waaye yow mi nga xam ne yaay jaay yaa koy buddi ndax dañuy bañ mistari yi bu dee buddi kenn li am lu ci yàqu nga ne ko da nga may fay kon nag yow aji jaay ji yaa koy buddi de nga ne waxuwa moom nag wa xawaa un dagan na jaay jaww foo ko xawaayin ci kaw jaww maanaam da ngaa tabax étage waaye ñëw bëgg a étage ci kaw nga ne ko xaay ma jaay la ci kaw bu ko defee in wu si fan mën a leer na albinaaw tabax ba laxalaa ak lasfal tabax bi ci suuf na nga xam tabax ba ci kaw dana dana ko mën a yenu nga ne waxat gi seen dagan na jëmbat bant fi ay ci làkk maanaam waa ji am na làkkam bu mu miir ba mu daj mu def ci ndox boo fi jëmbatee sa puloox mën naa ñor wala pataas wala pomiteer dagan na mun la jëmbat ci nangami weer di ma fay weer wu ne nangam waxu moom nag loolee man moonum lu ñu warul la lay doon daan yëpp ko ndere boo tudd na loolu datan addiya bu fekkee nag dala ni feeg ñetti weer kon sa ijaatu yooloo la yooloo nag tan fasiku dana firiku dina addi ni ci màbbug làkk ba maanaam heure bu bu làkk ba màbbee bu bu amee ñaari weer mu toj làkk ba toj su boobaa kon la nga jotoon nag jëmbat loola ngay fay weer wu def nga ca mujj dara du la ca fekk nga ne wa adama hurmatin sàpp nañ ci lépp lu ñuy jaay ñàkk xaraam wala li bay di leen laa araam kon nag boole sàngara dégg nga de ak lem di jaay daganul ndax sàngara sa dafa araam kon sàpp na ci adama urmatin mooy ñeen tënk ban tënkoon taliquha nee na wa jalil ak réeré di mas moo ñun ci lu ñu njëgal maanaam daganul ngay jaay lu ñu réeré ni ci da ngay jaay li ne ci néer bi ko xamuñu lu mu daganul aw saman wala lu ñu réeré njëgga jaay ma sa filaatee ci lii ci sama portefeuille bi xamoo ñaata la xamoo fukki junni la xamoo ñaar fukki junni loolu daganul wala tax si nan doonte réeré ga dafa ane woon ci fasale te ab day la juleen ni ki jaami ñaari góor ah da ngaa fekk ñaari góor kenn ku ne amub jaamam nga ni boole leen seen ñaari jaam ñi jaay ma di kasaa ci nangam daganul ndax kenn ku nekk mën naa am xaymay jàmba bi ñu tolloo te kon bu boobaa boo leen joxee njëgg xuloo day am aw ritin wala ritin min saatin mu tukkee ci gàtt bi da ngaa fekk ko leen def gàttam di jaay ndawal nga ne ko jaay ma ci rital te waxoo ko ci wet wet wet sàngam te yàpp bokkul ah mën na laa jaay fu la neexul nga ne ko ndakkoruma kooku dagalul da ngay bàyyi ba mu peese nga jënd ba tra di saayatin ak suufas namit dagalul jaay bu maanaam da ngay fekk tëgg buy tëgg ci barab daji ci wurus yàq xaalis jëm fay tuur nga ne ko damaa bëgg nga jaay ma ko ma lay ko dagalul ndax loolu maanaam ci la réeré la réeré lu ñu njëgal la ba tey bu sàddati wàcc wala doo delloo na ko mustari aji jëndam wala xana soo doonte layoon na ko da nga ko delloo la nga ca layit da nga koy delloo mu delloo la sa njëf nga ne wala hoo ñeel na ko nag moom ka nga xam ne moo lay suuf sa al ajru yoonu lay ba dala la delloo nag yoonu lay ba dala la ko delloo waaye laa ma addini sa addin waxuma mbellum wurus terewuñ ko ko jaay bu la neexee nga jaay suufas mbellum wurus aw ko detin wala mbellum xaalis dëgg la xarara nga ca waaye dagan na sëriñ bi nee na wa saatin dagan na jaay gàtt xam na tan kaa jëkk ak feesam dagan na wayen dagan na jaay pet fi suñ bulatin ci gub maanaam fekk mu ne ci dut dagan na jaay dégg nga de ah indi kërin den ci àpp natt la ci kanam tuuti wati min ak xatax dagan na jaay indi kërin den ci àpp natt la waxatin dagan na jaay jóor gi sa waxatin dagan na jaay takk gi saafan ci jóor maanaam maanaam ay takk mooy mel ne dangaa dem ci jaagu suuna bi ne ko jaay ma ci nangami takk dagan na waaye laa man koo sanga fa ma bu sal fañoo daganul ba say saytoon dagan na jaay ci saytoon di wax ñun ci màndaxe yéen la meq lif dem du wuute génn ga waaye nag say diw saytoon mooy nga ne ko nelal sa saytoon bi liitar bu ne ma fay la nangam dagan na waaye bu fekkee jënd ga day wuute mooy léeg-léeg saytoon bi diw gi dikk rafet léeg-léeg mu ñaaw kon xaral day daal di dugg dañ koy tere ñu ne fa aw mun ilaa ñu xayran dara boo tànnaloof na ko boo ko nee nag su fekkee bu la borom saytoon bi ne bu diw gi ñëwee ñaaw nga bàyyi kon bu baax nga dagan nga ne ko nalal liitar bu ne nangam wa dàq xisin tasin nga ne dagan na jaay sungu fa pep jëkk wal waa ji yor na su peppam di ko wal nga ne ko jaay ma kilo sungu bu nekk nangam dagan na su fekk walagul bu walee natt jox la wa saa dagan na jaay saa min subatin ci jóor ci kanam tuuti maanaam nga fekk waa ji yor jóoru peppam wala jóoru ceebam nga ne ko andaar bi ma natt jox la nangam wala kilo dagan na aw kulu saa yi wala bépp saa min su lati jóor bi dagan na waye ji la doon réeré koon na jóor ba ndax yow andaar yi rek nga am waaye laa mi naa wax moom tukkee ci jóor ba wa audit na mes albadu lenn kooku daganu mu ne wasaat jaay ma ci jóor bi rek te leeraloo kooku duñ ko nangu wasaat nag dagan na jaay gàtt wasu naaw arbaati ab taan ànd ak seet ci ñeenti dëtam maanaam jaay ma gàtt bi nga ne ko waaw mun la waaye nag boo rendee man mi la jaayoon gàtt bi da nga ma ci génneel ñeenti kilo yi ndawal teg si kooku dagan na wala yàqu sudu jàpp la ma xëy daa yàpp beneen gàtt bu boobaa nag yow ma jënd gàtt ba yàpp gàtt boobee mu la jaay tepp nga koy peeseel ñeenti kilo wasub retin dagan na jaay jóor wa si naa xadri sulusin ànd ak settee kem sulus wasam retin dagan na jaay meññet ci kanam tuuti da ngay xaddam wa si naa xadri sulusin ànd ak settee kem sulus kaay ma jaay leen meññetum tool bi yëpp waaye nag su boobaa boo ko nattee mu mat fukki bërigo ñetti bërigo yi moom génne naa ko ci ak genn wàll muy sulus bi loolu dagan na wajil din dagan na jaay gàtt ànd ak settee dagan na jaay gàtt ànd ak settee der ba maanaam maa ngi lay jaay gàtt boo paree boo feesee nga jox ma der bi wasaakin ak rotit ja rotit ja mooy yeel ya ak bopp ba dagal na bi safarin ci tukki sax ak wëlis ku teew yow daal da ngaa jiital sa gàtt nekk ci tukki fekk ku am soxla gàtt nga ni ko damaa bëgg ma jaay la gàtt bi boo ko rendee jox ma der bi ak bopp bi ak yeel yi ma yóbbaale ko loolu dagan na waaye bu dee mu bu dee mu xiima duñ ko ko nangu xam nga li tax ñu koy daganal musaafir xikma bi mooy amaana gàtt bi da nga koo moomul te da ngaa bëgg a wani borom boo ko jaayee ci àll bi buñ ko reyee nga wane ne gàtt bi kat jaay naa ko daf doon bëgg a dee wala damaa ragaloon du dund ma jaay ko nga andi wan borom boobee yeel yi pour mu nekk exemple looloo tax ñu may la ko ci tukki nga ne wa gis dagan na jaay gàtt dagan na jaay gàtt ànd ak settee xaaj la xam moo xam la ngay settee sulus la wala du sulus maanaam yaa ngi jaay gàtt bi ne la kaay ma jaay la ko yow buuse bi waaye jaayaalewu ma ci sulus bi kooku dagan na mut la xam moo xam sulus la waaye boobaa nag wa tawallaa u méngoot na ko nag almustari ak jënd ja mooy ren di gàtt ba fees toj saam ko jox la la nga settee woon wala mi ba dis ko forcé nag su boobaa ala sakk ci ren bi waaye bi xilaat it eptaali wut naaka settee kooku nga xam ne da ngaa settee ab xaaj nag ni ki sulus wala yu demee noonu kenn du ko ci forcé ci ren bi nag bi xilaat it eptaali wut naaka settee woon rutali te settee woon rutali moom nga xam ne da la ne ñeenti kilo yi ndawal laa settee ci gàtt bi su bañee ñu forcé ko su boobaa nag kii nga xam ni nga xam ne dafa da ngaa settee bopp bi ak der yi ak yeel yi laa waxoon ni moom disu ko forcé waxuy rek ànuloof na ko nag su boobaa fi def irasi jañ bopp maanaam na jañ bopp xaymay bopp moom dana ko joxe aw xaymata wala xayma ja waaye moom xayma ja nag ëxdalu moo gën a maandu maanaam boo settee bopp bi ak der bi ak yeel yi kenn du forcé waa ji ka settee rétalie moom des na ko forcé waaye ki settee bopp ak yeel kenn du forcé su boobaa nag des na wax bu leen di woon gàtt bi mu indil la xaymay bopp mu jox la bopp wala xayma ja waaye moom xayma ja ëxdalu moo gën a maandu mu ne waa jaam yàlla taxiiru tànnaloo googu ndax lil bàyyi ñel na aji jaay bi ndax ci jaayoon gàtt bi settee bopp bi moom la ñuy tànnaloo ñu jox ko xayma ay mustari wala aj jëna jëla ñu tàndaloo ni ko comme ren di woo joxel xay may bopp xaw laa ni am na ñaari wax nga ne walaw maata doonte deere woon na maa gàtt boo xam ne ustaf na settef na min ucci moom mu ay nun lu ñu ràññee dami na wàllu al mustari aj jënd ja jël dan der wasaaxitan ak rote ah léegi nag gàtt boo xam ne dañ caa settee sulus mooy mu xayanun wala robo su boobaa bu méddee ah ka nga xam ne moo ko jëndoon dana la warlu der ba ak bu dee der nga settee woon dana ko warlu ak rotit muy yeel ak yeneen waaye laa la man ko settee woon yàpp moom su fekkee gàtt ba dafa dee médd day ñàkk ci settee woon der des na ko jox der xëy may der loolu la bëgg a wax nga ne wa gisaatin dagan na jaay jóor ànd ak juróom-ñaari sàtt sàtt bu njëkk mooy inri leen gisees na ko jóor mooy lu ñu wañul peese wuñ ko nattuñ ko ci sàtt bu njëkk mooy inri leen gisees na ko sàtt ñaare boo la ñëkkul te bëriwul di dem lool sàtt ñetteel ba wajja ilaaw lu ñu réeree jóor ba maanaam ñaar ñi koy jaayante bu kenn xam ne jóor bi toll sàtt ñetteel ba wa arasaan nañ ko nattale ñoom ñaar sàtt juróomeel ba wasta watta yemoo ardu oo suuf sa bu mu gëll góose na nekk fa tànn sàtt juróom beneen ba wala ñu addata mëneesu ko waññi bilaa ma sakatuñ ci loolu coono waaye bu fekkee jóor mëneesu ko waññi ci loolu coono kooku boobu baa daganul jóor jaay ah sàtt juróom ñaareel ba wala ko sëfta jubleekul afraatoo ak wéetalam waaye lépp loo xam ne sharia daf caa jublu wéetal loola kenn du ko jóor jaay ñu tëj ci asada abdou jiy def jaam daganul jóor jaay dégg nga saw bu ñuy def mbalaan daganul jël jaay dégg nga de daaba lu ñuy tuddee daaba daganul jël jaay ndax daaba mooy ay xaraki nage ci bëj yooyu yëpp daganul jël jaay ñu ne ko aw mu ne ilaa walam toko tafrago ilaan yaqila dane boo néew na samanu oo njëgg lu njëgg néew nag may nañ ci jor jaay mi tañ ca batro ba bay lu ji def nen njëggaa néew tubaab ji firi pom njëggaa néew dégg nga de romano bi firi garnaat ndi njëggaa néew muy batru ba ak battiku bi firi xaal njëggaa néew sëriñ bi nee na laa xëy di ma ilmu xamal du jor bu ñu gis jor bu ñu gisul kooku moom daganul dégg nga de kon nag mooy mu siraatum inri a jor bu ñu gisul maanaam maa nga yor fee saako pet waaye saako ba gisoo ko xamoo nu mel man la kaay ma jaay la ko nga daal di d'accord loolu daganul wala saako ceeb waaye mét afar min donte sax ci ndab la donte damaa xam saako bu mel ne moom mani la saako bu day nii la it daganul légal ba gis ko walaw saaneen donte ndabal ñaareel la ba de tafiqi gannaaw ba mu sottee ndab lu jëkk la dama laa jaay saako duy ko ngooñ ba mu feer ma sotti ne la ma soliwaat ko indi ko nit daganul ndax damay bañ boo demee sol ko solum ñaareel sol bu baaxul loolu la sariya ay bañ kon xaral day daal di dugg ilaati ka salati tiinin nga lu demee ne ci pañeb dang maanaam bu la neexee ngeen ni zallatu mooy pañe waaye mooy paan xam nga paan moom ñaare feesaay bi du lu ñu yo du lu yomb a wàññi su la waa ji jaayee paan duy ko ba mu fees ci dara dagan na nga ni ko demal nga sotti ni ko demal duy waat ndax paan moom du lu ñu mën a toppale ak feesam waaye wute naag saaku saaku mën ngaa yow la man mën ngaa feesam kon bu dee paan dagan na waa asatiri ayatin ak picc ndundat daganul jóor jaay picc ndundat mooy picc yi na ci kaaf di xafasin ci kaaf daganul jóor jaay fa amaay bu jëm pertaxi ngunu daganul jóor jaay wa siyaabin malaan daganul jóor jaay wa naqadin ak kee daganul jaay su kandeem ci kaaleet na ko wa taamul te mbir moom jëfandikoo ko bir adadi nekk ci wañu ba daganul jóor jaay wa ilaa ndem dañoo sikaal keega nga xam ne dañ ko sikaal sikaaluñu ko wa ilaa ndem sikaaluñu ko jaasa mu dagan jóor jaay dama ne buñ ko sikaalee kenn du ko jóor jaay waaye buñ ko sikaalul dagan na fayin alima ndem xam na ahaduma kenn ñaari way jaayante ña bir mi laa xel ci xamu morom ma bi kadri ci kenn jóor ba ku ne la tànn ko maanaam yow yaa ngi may jaay jóor te xam nga ni xam nga nu mu toll ci lim ah dañuy tànnaloo ko ca def ñu ci bàyyi xam ne ko mustari xamu ko kon ñu tànnaloo mustari wayen ana moo nem xamal na ko jóor ba awalan ci njëlbeen fatada yàqu na njaay ma da nga ko ne jóor bi nangam la kon njaayam jóor bi yàq ka mu xam ne ni ki jëbéer bu di aji waykat nga saat sa wayya ko moom itam day yàqu maanaam waykat waykat di ko saataale ci njaay xay na jaay la jëbéer bi mais way yi da nga ciy dolli nangam ndax mën a way bi daganul wa gisaa fi addin ak lu ñu jóori pet maa makin ak lu ñu natt ci pet xam nga pet dañoo bëgg ñu natt ko buñ koy jaay nga ne ma kaay ma jaay la jóoru pep bee ànd ak lii ñu natt muy bari ko dagalul aw ardin wala lu ñu jóori pep ànd ak lu ñu natt suuf dagalul ndax pep mam dafa jënd cosaanam dégg nga bu ñu ko jóoree dafa jënd cosaanam suuf natt mooy jën jënd na cosaanam moom itam kon lu ñu jóori pep ak lu ñu natt suuf dagalul wa gisaati ardin ak lu ñu jóori suuf maa màcc lii ànd ak lu ñu natt suuf kaay ma jaay la suuf suñu jóor kenn natt ko xamuñu nu mu toll ak suñu natt ba xam nangami hectare la kooku it daganul ndax lenn la nekk na ci cosaanam la ñu natt génn na cosaanam la ñu nattul loola moo nekk cosaanam ndax suuf it mooy cosaanu pep suuf suñu natt génn na cosaanam suuf suñu jóor loolu mooy cosaanam kon suuf buñ ko jóoree lenn la ñu natt ko kooku daganul waaye laa maa abbiñ waxuma lu ñu natti lu ñu jóori suuf ànd ak lu ñu natti pep loolu moom dagan na kaay ma jaay la suuf suñu jóor ak pep mu ñu natt dégg nga de suuf si fukki junni pep mi ñaari junni dañu natt ko dagan na waaye jóor su doon a dagan di saafaani jaay ñaari jóor wa makkilaani ak ñaari ñu natt dagan na nga jaay ma ñaari jóor dégg nga de noona te kenn natt ko ni ki saako fet baa nga ne saako ceeb baa ngi nii ñu ngi taxaw kenn nattu leen nga jaay ma leen wa makkilaani dagan na jaay leen ñaari ñu natt maanaam ñaari jóor yi benn bu ñu natt dagan na wa ji saako dagan na jaay jóor maa addina ànd ak natt bi saako baa ngi nii nga jël pis bi teg ci ne ma kaay ma jaay la ko saako bi pepp ci nekk ba fees dagan na wa ji saafaani dagan na jaay ñaari jóor alaaka liñ ci natt ina taadan den benn na alkeelu natt ba wasifatu ak melawa dégg nga de nga ne walaayu daafu déepul laafal boo déggee wa gisaapaani daga na jaay jaay yo alakeli ini taad na benn alkaylu natt ba maanaam njëgga wa sifatu ak nelaw maanaam tey ñaari saakoy ceeba ngi nii nga natt kilo bu ne nangam ci saako bu nekk loolu dagan na nga ne walaayu daafu déepul laafal li gisaatin ñeel jóor bu ñu jaay alakeli ci app natt din ci laafal xëyru koo leneen soo ma nee saako bi dinaa la ko jaay waaye dama koy jóor dootoo ci mën a laafal leneen dootoo ci mën a teg pis dootoo ci mën a teg mut la kan moo xam lañ cay laafal ca xeetu jóor ba la bokk wala bokku ca xeetu jóor ba waaye boo ko xasee ba jaay ci jóor rek doo ca laafal dara nga ne ba jaay sa dagan na jaay ak jënd di yëkkati ci bari nit yi ci gis leen ne ko kenn maanaam li na ci biir saako bi xamuñu ko ceeb bi xamuñu dafa rafetam déet waaye buñ ko bëndee ba xool ko rek dagan na nga sukkandiku ci jaay saako bi yëpp wasiwaaneen dagan na jaay wasiwaaneen ak waxande lu nekk ci waxande bi bu ñu ubbee keesu diw bi génnee ci benn litre muy exemple dagan na nga sukkandiku jaay kees bi yëpp wa dagan na jaay ak jënd ala barnaami jëm ci ab foo bind mooy lu ñu teg kooku dagan na bind ci kaw ne nangam ak nangam ci nekk lii warga la nangami kilo la kees bi nangam warga sàngam la loolu wér na wa minal ahma dagan na jaay ak jënd mu tukkee ci gumba waaye gumba dagan na mu jaay dagan na mu jënd maanaam nga jaay ko dagan na nga ne wa dagan na jaay du yéetin ci gis jënd wa dagan na jënd bir wéetin ci gis laay ta xayru boo xam ne soppikuwul ba daxaa gannaaw ba waa ji dafay jaara ku ab weloom di ko jaay hum, démb nga fay ko ko tey jot mu ñëw fayu la dagan na nga jënd donte nga xam ne gisatoo ko diggante démb ak tey waaye nag su dikkee nga am sikki sàkka ca am na sottiku wa alaka ji ñëpp na mu dangeen aji woote li bay i barnaamij ci njaayum aji bi njaayum barnaamij maanaam si bindoon ci kees gi nanga ma liitare ci nekk wala war nga sàngama ci nekk nga dikki am sikki sàkka ca la mu bindoon nga fekk ci biir lu bokkul ak moom ko xamoon na nga xam ne dañ ne dagal na nga jaay bi danga naan waxala fa giñet la mu daxin aji woote li bay fi barnaami ji ñeen njaayam barnaami mee ñu ne daganoon na nga xam ne dañ ne dagal na nga jaay bind ci kaw kees gi nangami litre nekk ci biir diw gu mel nangam la wala warga wu mel nangam bu fekkee ki ko jënd dafa am dafa am sikki sàkka woote ni bokkul ak la nga waxoon bindoon ca kaw bokkul ak la mu fekk ci biir kon da nga giñ ni yow mi ko jaayoon am na muwaafaqatoo naka la mu dëppoo ci biir li maktoo bi ñee la ñu bindoon ca kaw wa adama dafsira din ak ñàkk a jënd ñaaw loolu da nga ci giñ aw baqaa aw naaqisin wala ñàkk a jënd wàññeeku ba mu la nee dafa ñaaw na nga giñ ñi jëni ma lu ñaaw lu mat lu rafet laa jëñ ak ñàkk a wàññeeku bu nee bu nee fukki litre rek nga ni woon moo ca nekk te juróom-ñeent laa ca fekk mbaa juróom-ñett na nga giñ ñi mat lu mat fekk ci nekkoon wa baqaay sifati ak desoog melokaan wa in sukkandeen ci kiir na ci kooku nga xam ni dafa jëndoon loo xam ni démb bi ndafiy jaar la ko gisoon mu jënd ko ca melokaan wa wa dikk war ne la xaw naa soppiku da nga giñ ñi ko nii la meloon démb bi ma fiy jaar in sukkandeen ci kiir na mu ngoog waxaay bi dagal na jaay lu faddu ala xiyaar njaay lu xiyaar ci kanam tuuti maanaam waa ji am na nagam bu fi nekkul wala otom bu nekk ndakaaru dagal na nga jënd ko waaye nag ci kaw xiyaar maanaam dem ba biir wéetin ci gis wala bi laa wasin doon ci lu dul melal la woon it nag nga xam ne boo demee ba gis ko bu la neexee jënd bu la neexee bàyyi waxaale ngeen daal ba juboo nga xaar nag ba gis ko loolu mooy ala xiyaar yi ci xiyaar biir wéetin ci gis dégg nga de nga xam ne bu la neexee wéel bu la neexee bañ waxalaa yemin wala doxu bis nga xam ni fii li ñuy jaay lu faddu fi mu nekk maanaam bu bu ngeen doxee benn bis rek àgg fa xam nga bu njëkk mag ñi doxu tànk lañ xamoon léegi nag xam nga dox bu gaaw a xew moo tax awa sa foo wala melal ko xëyru bàyyin ko du mu aji jaay ja ba tey wér na maanaam lu faddu nekku fi keneen ku ko jaayul mu ne la nangam ak nangam la mel dagan na nga jënd ko wala mu yëpp ut te soriwul maanaam ak faddoom maanaam bu mu bu mu fadd fu soree sori te xuraasaan nekk xuraasaan min ifriqiin ci kojub ifriq ah xam nga xuraasaan mooy loo xam ne dafa nekk ca boru Pakistan nga bëgg a jënd nag lu fa nekk te nga nekk fii ci Afrique ah kooku kon dafay xaw a sori sartu ñaareel ba ci jaaylu faddu wala dama ne woon in lam yëpp te xuraasaanin sartu ñaareel ba wala mu tum cinte jàpp nduuru yëtoo ak gisam bi laa masaqatum ci lu coono waaye lépp loo xam ne mënees na ko gis ci lu dul coono loolu daganul jaay ci faddu wan naq du dagan na teewal fii ci jaaylu faddu ci lu dul sart maanaam daal ma dina jaaylu faddu nga daal di làmb sa poos wóolu ma tax nga daal di teewal ci ci sartu ma la ko dagan na nga ne wa dagan na jaay lu faddu maa sartin an dagan na teewal wa dagan na teewal maa sartin ànd ak sart dégg nga de fil aqaar ci xaqaar maanaam xaqaar bu fi nekkul ma jaay la ko te nekku fi ma sart nga da ngay teewal léegi dagan na xaqaar mooy pakk wala suuf wala yu demee noonu ndax yooyu da dul sensé moo tax nga ne ma daminoo war nag nag su boobaa almustari aji jënd ja maanaam nag képp koo xam ne dégg nga de dangaa jënd loo xam ne dafa faddu walbatiku teewal yow ma jënd yaay warlu dégg nga de ilaali sartin de sart waral bàyyi boo ne bàyyi ah su ma demee kat fekk mu am sikk kon su boobaa lu ca yàqooti dama dama lay delloo kon su boobaa baax na laay satin ca kanam nga ni wa dagan na teewal ànd ak sart fi xëyri yi ci lu dul xaqaar waaye in xaru ba ndeen jëriñ na xaqaar mooy nee naa la suuf ak lu ca aju moom dagan na teewal ànd ak sart waaye lu dul xaqaar it ni ki bàyyi ma wala leneen dagan na nga teewal ci lu dul sart nag ànd ak sart ànd ak sart maanaam ki koy jaay ni la da nga may fay léegi waaye nag in xaru ba ndeen jëriñ na fa mu nekk xëyoo ma ni tëru dox ñaari fan su boobaa nag wa daminoo warut na ko bàyyil aji jaay ja ah su ma la jaayee tey kat lu mel ne nagu nekk fële te ca mbir ki laan wala nag woo xam ne ma nga nekk ñooro su boobaa nag bu ma demee fekk mu am ayib yow man bàyyi maay warlu waaye yow mustari doo ci doo ci warloonte nag dégg nga de ilaali satti ndere sart waral bàyyi u ndere boo nag dama laa sat ne la ah lu dal nag ma nag yaay ñàkk nga ni waaw xaw ma naa daa ci wala xëccoo ma ne bu ñu xëccoo it naka noonu bàyyi xooy warlu maanaam bu ko nee da nga may jaay yëf yi dégg nga de moo xam fekk na am na ayib dégg nga de dégg nga de kon nag su boobaa mun la amuloon ayib su boobaa bàyyi oo mooy warlu ba tey ndax li ci saan warlu dégg nga de mooy bàyyi fu mooy ci saanal warlu moo tax bu ñu xëccoo rek da nga may jaay li faddu am na ayib mu ne ko amul ayib bàyyi xooy warlu mooy munaafaati nga ne ma xam doo nga bëgg lu faddu alal mustari war na aji jënd su ma la jaayee lu faddu lu fi nekkul yaa koy jënd waaw ma araam na wax boobu yem foofu léegi mi ngi dugg ci weccee wurus ak wurus wala weccee wurus ak xaalis wala weccee xaalis ak xaalis ñett yooyu dafa am nu ko sari a tërale mu ne wa aruma araam na si naqa din ci kee muy wurus ak xaalis riba fa din riba ëppalante ci kanam tuuti war war na saa yin ak riba yeex xaalis ak xaalis daganul ëppalante wurus ak wurus daganul ëppalante wata aamañ ak ñam araam na riba fa din riba ëppalante war na saa yin ak riba yeex su may weccee maag yow nga yor ñam ma yor ñam ni ki nga yor ceeb ma yor ceeb te sa ceeb gën a rafet rafet sama ceeb daganul ñaari kilo ci ceeb bu rafet bi ñetti kilo ñetti kilo ci ceeb bu bu bu bu bu ñaaw bi daganul laa dinaarum jaxanul jaay ab dinaar wa déet amul akub dërëm bi nit lii maa jënde kenn seen ñoom ñaar araam na aw xëy wala dinaar akub dërëm mooy dinaar akub gàtt bi nit lii maa jënde kenn seen ñoom ñaar ci kanam tuuti daganul nga yor dinaar akub gàtt ma yor dinaar akub daganul nga ne moom maa ko araam na saraf suñu yeexe wala xariban donte saraf suñu donte yeexe gu jegeñ la dégg nga de wala xariban donte yeexe gu jegeñ la maanaam dangaa yor fukki dinaar bëgg a wecci ma bëgg maa wecci ma wecci la ko téeméeri dërëm nga bëgg a denc fële daganul aw xalabatan wala ci noteel aw xaqada wala mu fas ba noppi wa wakkala mu wakkil maanaam da ngaa fas ni ma sama fukki dinaar dinaa la wakkil ku la ko andil daganul fil xat di ca nëbb mu ngoog aw xaaba wala faddu naq do aadima teew kenn ci ñoom ñaar nga xam ne yow say dinaar a nga marché man sama xaalis a ngi nii ci misaal daganul wataala te yàgg faddu ko aw naq daamaa wala seen ñaari kee yëpp faddu man sama téeméeri dërëm ma nga marché yow itam sa fukki dinaar a nga marché ñu daal di def loolu muy pas-pas pas-pas bi mu daal di rafante daganul aw bi mu waadatin wala ci daalante daalante mooy nan tase marché kenn ku ne jox sa morom la nga wax ñu daal def loolu muy pas-pas bi loolu doganul aw bi daynin wala ci bor maanaam sarafante ci bor boo déggee sarafante bi daynin ci bor mooy maanaam inta akara inta ajal ndeen diggu na bor ba ni ki tey yow da ngaa yor fukki dinaar yoo xam ne dañ la daf maa dama laa ameel fukki dinaar yoo xam ne fii dafa jëm weer dégg nga de yow itam nga ameel ma ay dërëm yoo xam ne dafa jëm weer nu bëgg a def loolu ñu sarafante ko daganul inta ajal ndeen diggu xanaa ñoom ñaar ñëpp dañoo dugale mu ne wa in min ahadima doon dig ba kenn ci ñoom ñaar la donte yow dinaar yi nga ma ameel mu jëm weer man dërëm yi ma la ameel tey laa la ko war a jox dagaloo di ko sarafante aw xaaba wala faddu rexnun ak tayle ni ki tey da nga am kay gañu tayle nga bëgg koo sarafante dagalul aw wàjjeetu nga leen dénkaale da nga am kay goo dénkaale nga bëgg koo sarafante dagalul wala su ko doon ci kaaleefoon na ko ka Moussa jëri ni keel guñu keel guñu yoole da ngaa amoon sa takkaay luye ko wala bëti ko gis ko bëgg a wecc ko nga ne ko naa la ko saraf dagalul nga di ko sarafante waxaar itam keel guñu àbb maanaam dem ak moom nga bëgg koo sarafante dagalul wa max soo duñ keel guñu fëkk in si xandeen tëjeef na ko ni ki benn waaye dafa fëkk say dinaar ñu tëgg ko nga bëgg ko nga nga bëgg ko ma ko wecc ma wecc la ko xaalis daganul ilaa nges abandare boo teew na xaasib fayet mënu mu war nu xiimatoo xayma ji bu xaasib teewee war nu xayma ji rek bu baa fëkk dee ni niki bor la te mooy bor bu ma din teew tudd ni mën na koo fay dagan na nga sarafante ko kon bu xaasib teewee ni dinaar yaa ngi nii mën naa koo indi ah dagan na nga sarafante ko wa dagan nga ni wa araam na saraf bi tasdiqi ci dëggalante loolu ngay wax sëriñ bi nee na dëggalante mooy lan nun ñuy sarafante kenn ku nekk daal di ne sa moroom andi wurus bi mu andi dégg nga de andi xaalis bi waa ji jox la xaalis bi nga jox ko wurus bi kenn ku ne ni sa moroom wañu doonul wañu loolu la ñuy tere araam na dëggalante fii ci saraf ka boobaa dal tri bu way ni mu dëlina ci araam gi ni ko wattalante ñaari ko riba araam na maanaam ñaari riba tabbi ni ki tey nga yor sa ceeb ma yor sama ceeb ni wattalante kenn ku ne dëggal sa moroom rek peesiwul loolu araam na wa mu xëy din ak lu ñuy leble araam na dëggal si maanaam waa ji dina lebal tey di suuna wala ceeb nga di ko jërul peese indi loolu tere nañ ko wa mat yéen ak lu ñu jaay li ajalil mu jëmub dit loo xam ne tey waa ji dala koy lebal bu weer dee nga koy fay dagalul nga di ko dëggal naan ko peese nga ko rek daal di jël wala si maali sanami bopp jurug sanam la gañ lay gañ nga xam ne da ngay indi leneen kooku dagalul dëggal moom itam araam na nga di ca dëggal kenn nañ ko nañ ko wàññi ba mat ñu jox la ba mu ajalil araam na lu ñu saraf suñu gaale xam la aj ba mu ajalil ak lu ñu gaale xam la ajali jëkk dig ba tey da nga maa leboon dara noo xam wurus la wala xaalis dikk andil ma ko ba dig ba daal jot araam na dëggal naa ko wàññi ba mu wér cëng ma xam ni kon li nga li ma la lebaloon mat na moo xam lu mu doon nag wa bayoon araam na njaay wa sarfun ak sarf njaay ak sarf araam na kaay ma jaay la fas wi dégg nga de te nga def ci ma téeméeri dinaar loolu la ñuy bañ téeméeri dinaar yi juróom fukk bi mooy njëgu fas wi juróom fukk bi ci des nga wecc ma ko xaalis loolu la ñuy bañ yaa ñëkkon dre boo nekk na aljamihu lépp dinaaran di benn dinaar ni ci tey tey da ngaa am silaa soo xam ne mi ngi jar juróom ñett nga yëkkati ko jox ma nga yëkkati dinaar jox la boolee ñaari dërëm xam nga ñaari dërëm yi lam tollool ci dinaar ba saraf la la ca la tolloog silaasa di di njaay loolu dagal la aw istamaa wala ñu aw wala ëpp na benn dinaar naam waaye istamaa dajaloo nañu ñoom ñaar njaay maag sarata fii ci benn dinaar ñu te ni ki tey danga damaa yor ñaari dinaar yoo xam ne dinaar bu ne ñaar fukk lay wecciku yow nga yor malaanum fanweer ma yëkkati ñaari dinaar yi jox la dégg nga de nga yëkkati malaan ñaari malaan yi jox ma boole ci ñaari malaan yi fukki dërëm ñaari malaan yi li mu tollool ci dinaar bi ak genn wàll njaay la fukki dërëm yi nga ci boole saraf nga ci li ci def waaye dagal na nga ne wasalatun alaam na jaay si laa bi dinaarin an ilaa dir amee ni ngay xaddam ca kanam ànd ak ñaari dërëm bi dinaarin jëndeb dinaar tey damaa am benn silaa ni ki ganaar boole koog ñaar dërëm nga jox ma dinaar loolu araam na in ta ajala ndéem digu na aljamihu lépp nga xam ne tey yow man silaa si ma lay jox ak ñaar dërëm yi dafa digu yow itam sab dinaar jëmub digu kooku dagal na awi silatu wala silaa sa digu ànd ak teewu ñaari keeye même bu ma andi woon ñaar dërëm yi war a ànd ak ganaar gi yow nga andi dinaar bi dégg nga de waaye ganaar gi moom dikkul kon it dagalul bu si laasa digoo rek dagalul aw ahadu naq day ne wala kenn ca ñaari kay digu bu kenn ca ñaari kay digoo ba tey moom itam dagalul moo xam dinaar baa digu moo xam ñaar dërëm yaa digu bi xilaata ci aji lii xima loolu naaj digu ñaari kay ànd ak teewuk si laasa bu ñaari kay yëpp nag digoo nga xam ne dinaar bi moom digu na dërëm bi jëmub dig waaye si laasa moom teew na kon mu dagal aw tax jili jamee wala wala gaawe lépp wala dinaar ba teew ñaari dërëm ya teew ànd ak si laasa lépp kon mu daal di dagan loolu nag mu di ko nirale ci dagan gi mu dale nirale ci dagan gi ka danaa nira naka la settee ay dinaar ka daraa xima ka daraa ima naka settee ay dërëm min danaa nira mu tukkee ci dinaar bil mu xaasati ci lankoo wala ndef bi te gisul sëriñ dara muy soolu njoolu njëkk tey waa ji dafa am fukki malaan malaan mu nekk xaymaam fukk ak juróom-ñett mu dajeeg yow li la njool de man damaa yor sama fukki malaan malaan mu nekk xaymaam fukk ak juróom-ñett nga ne ko ah man de njool fukki dinaar laa fi yor waaye dinaar bu nekk xaymaam ñaar fukk la te it fukki malaan laa bëgg malaan mu nekk xaymaam ñaar fukk nga ne ko ah jot naa la ci lim de waaye yées naa la ci dayo man samay malaan malaan mu ne fukk ak juróom-ñett la waaye mën naa malaan mu ne ma taf ci ñaar dërëm mun la yëpp kon sëriñ si dañuy jam ndax njaay stress day daje ci lépp benn dinaar waaye mën na maa mun na kon léegi naa settee dërëm yi nga wàññi dinaar yi mun la ay ca nga ne ko kon par ñaar dërëm laa waroon teg ci malaan mu nekk mu ne waaw mu ni kon nag tegg naa dërëm yi fukki ñaar dërëm lu mu ñu ne xanaa fukki ñaar fukki ñaar dërëm muy ñaar fukk dégg nga de benn dinaar lu muy lu muy lekk si ñu ne ñaar fukk nga ne ko kon nag wàññi naa benn dinaar ci njëg gi mu def fukki malaan malaan mu ne xaymaam fukk ak juróom-ñett juróom-ñeenti dinaar dinaar bu nekk xaymaam ñaar fukk muy téeméer ak juróom-ñett fukk malaan yi téeméer ak juróom-ñett fukk mu yëkkati juróom-ñeenti dinaar jox la wàññi benn dinaar nga yëkkati malaan yi jox la loolu mooy soor wala ñëf dul sëy nga ne wabi fadli bir amin bu dee def itam benn dërëm ca topp kasaalika naki woon ci jaay dinaar jënd sila ànd ak ñaari dërëm la bu lépp teewee mu dagal bu silaa sa teewee ànd ak diggu ñaari kee it mu dagal ci kanam tuuti nga si dërëm mooy tey yow na ñaareel da ngeen a tase mun la njool de man la ma bëggoon rek laa bëgg ci dama fa yor fukki malaan malaan mu nekk fukki dinaar ngay jëkk wax dama fa yor fukki dinaar dinaar bu nekk xaymaam ñaar fukk bëgg ci fukk bëgg ci fukki malaan malaan mu nekk xaymaam ñaar fukk mën la jot naa la ci lim waaye yës naa la ci dayo man fukki malaan laa fi yor waaye mbay malaan mu nekk xaymaam fukk ak juróom-ñett bi sax manqué na tey tànk tànk mooy genn wàllu fiftin waaye mën naa malaan mu ne ma tax ci ñaar dërëm a fiftin nga ne ko déet kon sëriñ ci def nuy jam da ngay settee ñaar dërëm yi bu tolloo ko dinaar ma wàññi ci njëggi dinaar nga settee ci ñaar dërëm ya kon fukki malaan a fi nekk malaan mu nekk xaymaam fukk ak juróom-ñett bu màcc tànk ba mu dindee ñaar dërëm yi nga dindi dinaar ci njëgg kon malaan mu nekk fukk ak juróom-ñett bu manqué tànk te fukki tànk mooy benn dërëm mu daal di yëkkati benn dërëm booleeg malaan yi muy téeméer ak juróom-ñett fukk ci xayma nga yëkkati juróom-ñeenti dinaar jox ko mu dem nga dem wafi fadli dër amee ni bu dee indi ñaari dërëm kasaalika ni ko woon ci jaay sila ànd ak ñaari dërëm jëndee dinaar la ba tey bu lépp teewee mu dagal bu sila sa teewee ànd ak diggu ñaari kee mu dagal te ñu gën daje yoonu ñetteel mu ne la njool man de la ma yoroon laa yorati rek fukki dinaar laa fi yor dinaar bu nekk xaymaam ñaar fukk bëgg ci fukki malaan malaan mu nekk xaymaam ñaar fukk mun ne ko ah njool jot naa la ci lim waaye yées naa la ci dayo man malaan fukki malaan laa fi yor malaan mu nekk xaymaam fukk ak juróom-ñett bu manqué fifty waaye malaan mën naa malaan mu nekk ma tax ci ñaar dërëm ak fifty nga ni ko déedéet kon sëriñ si dañuy wax ne danoo booyee njaay soof te kon darulu setteel ñaar dërëm yi mu ma wàññi benn dinaar ci njëg gi mu daal di dindi par ñaar dërëm yi fukki ñaar dërëm ñaar fukk la tolloog benn dinaar nga wàññi benn dinaar kon malaan yi ñaar dërëm ak fifteen nga ci waroon a teg tegi nga ñaar dërëm yi mu def fifteen fukki fifteen di ñaar dërëm mu jël ñaari dërëm booleeg malaan yi jox la yow borom dinaar yi yow borom dinaar yi nekk ci juróom-ñeenti dinaar jox ko dégg nga de téeméer ak juróom-ñett fukk mbalaan yi téeméer ak juróom-ñett fukk bu manqué ñaar dërëm teg nga ci ñaar dërëm nga ne wa ak wa fadli ak sara nekk nga ci itam lu gën a bari lu gën a bari ñaari dërëm kal bay ini ki wan njaay la wasal fen ak saraf da nga de te mooy ne lépp di benn dinaar wala boppee benn dinaar la daje ci benn dinaar muy sooru ñeenteelu njool ngeen dañu yoonu ñeenteel mën la njool man de la ma bëggoon laa bëgg ci rek dama fa yor sama fukki dinaar dinaar bu nekk xaymaam ñaar fukk bëgg fukki mbalaan mbalaan mu nekk xaymaam ñaar fukk nga ne ko njool jot naa la ci lim waaye gis naa la ci doy man fukki mbalaan laa fi yor waaye tey mbalaan mu nekk xaymaam fukk ak juróom-ñett bu manqué duubal duubal mooy ñaari fifteen waaye mën naa mbalaan mu nekk kat ma taf ci ñaar dërëm ak duubal nga ne ko ah kon sëriñ si dañuy jam de nan teggi ñaar dërëm yi bu tolloo ko dinaar mu bàyyi benn dinaar mu teggee ci ñaar dërëm yi nga wàññi benn dinaar te urus ma kon léegi fukki mbalaan a fi nekk mbalaan mu nekk xaymaam fukk ak juróom-ñett bu manqué ñaari fifteen muy duubal ñaari fifteen nag fukkam da nga de boo ko calculé mooy ñeenti dërëm kon nga jël ñeenti dërëm booleeg fukki malaan yi da nga de muy téeméer ak juróom-ñett fukk waa ji jël juróom-ñeenti dinaar jox la ngeen daal di dem ku nekk dem ñu daal di foofu la ñeenteelu soor wu njool jeexe nga ne wasaa yoxul araam na faran tukkoog tëgg yuutaa boo xam ne def na ko jox si la taman lexe ma wal ujurata ak yool ba day waaje dafa yor ay dafa tëgg ay takkaayam nga dikk ni ko naa la jox lu toll ne wurus wi ci takk lu toll ne takkaay li ci wurus te nga jox ma nga wëlbatiku ah booleel yool bi toolob tëgg bi daganul ndax loolu ba tey sarafu bi siyaadati ni la ndax comme jox nga ko lu toll ne wurus takkaay bi wëlbatiku tegal ko ci yoolu coolo bi loolu ba tey day indi sarafu bi siyaadati ka saytoon yi ni ki saytoon wa ujurati ak yool ba waa ji dafa nal saytoonam ba mu nekk diw nga ñëw ni ko nakkal ma ci nangami liitar te man wutal la saytoon beneen boo xam ne da ngay jox dama ciy boole yoolu nalukaay ba loolu it daganul ndax xarar la li ma sare te ñeel nalkat ba da xilaatu ci dum lootu naaj babit wurus yóttee boo xam ne dana joxe ko musaafir musaafir mu ajuratu ak yool ba dara dar bi ci këru tëgg ba maanaam tey da ngay da ngay musaafir dikki fekk tëgg bi tëgg takkaayam nga ni ko léegi naa la jox sama dogitu wurus wii nga jox ma takkaay li fekk dogitu wurus waa takkaay laa tolloo li yaa ko sañ la jàpp sinatoo mën na xem kooku moom des na ko nangu waaye nag wala saf la gën a penc mu du xilaa foofu mooy lu mu teg nangu am nañu ne sax dagalul ndax ba tey xam nga boo ko joxee yoolu tëgg ba ah ba tey day niroog lu jëkk leen waxoon mu dellu atif ca dagan ga wa bi xilaaf yi dir amin loolu wutu naa ko dërëm joxe dërëm bi ni seen jàpp mu sif dagan na wafuloo seen ak i koppar xam nga dërëm bu njëkk dafa amoon valeur boo amee marchandise moo xam ne da nga koo soxla te lu njëgg manqué dërëm mën ngaa joxe dërëm la ca def ñu jox la koppar booleeg marchandise ma aw xëy di wala dul koppar waaye nag la ñuy boole marchandise ma ak leneen kon jox la yow joxe nga dërëm bi ñu jox la marchandise ak leneen waaye ànd naag sart yi juróom-ñaari sart sart bu njëkk ba mooy fi bay in na année ci njaay nga xam ne da ngay jënd ci dërëm bi dara ni ki dañ ciy jënd malaan nga delloo la waaye xam nga téere yi biñ koy bind dafa fekkoon booba dërëm nekk lu am valeur nga xam ne mën ngaa joxe dërëm bi ñu delloo la ci ay weccet yu sew sewaan ay tranche ay fifteen ay koppar ay suuf ay yu demee noonu waaye sart yooyu daal la ñu nii fi bay in na année ci njaay mooy sart bu njëkk ba nga doxe dërëm bi di jënd dara ñu jox la loola boole ci ak koppar boo sukkaati si kaalif leen ñoom ñaar dërëm ba ak genn wàll ga nga xam ne moom ngay jël lañ leen sikka ñetteelu sart bu ko taari te benn sikk ga ñeenteel ba urifata xamee ko alwas ni man ma juróomeel ba wan tuqi da te teewloo ko aljamihu mboole ma lépp na lépp teew maanaam dërëm ba ak la nga teel bu boobaa ka dinaar yi dana mel ni ki dégg nga de jaayee ab dinaar ilaa dirhamay ni ànd ak ñaar dërëm nga koy firee dégg nga de bu lépp teewee mu dagan bu sulaata teewee ànd ak diwu ñaari teewee mu dagan wa ilaa ndem sart yooyu dafa kat nag falaa du dagan bu fekkee sart yooyu benn da caa manqué rek du dagan nga ne war da delloof na siyaadatu ndolont ba doxoo gannaaw saraf li ay bi ngir ay di saraf sa maanaam dama laa wecc ab dinaar fukki dërëm yàlla dogal nga gis ca fukki dërëm ya nga dikk ni ma fukk ak benn nga ma war a jox ma yëkkati benn dërëm jox la yàlla dogal saraf sa am ayib maanaam fukki dërëm yi ci boppam am ayib soo ko delloo si mën ngaa delloo si waale dërëm ba mën a dolli woon waaye laa deesul delloo dégg nga de maanaam ndolant li ay baa ngir ay di boppam dong su dee benn dërëm ba mën a dolli woon dong moo am ayib kooku moom doo ko delloo si mu ne waal jàmm yàlla ñàkk a delloo ndolontu ngir ay bi boppam mut la xam moo xam ràññee woon na ko ko wala ràññeewu ko ko woon maanaam ba nga dikkee ni ma saraf ci manqué na benn dërëm ma jox la dërëm moo xam dama la ne woon dërëm bii laa am wala dama laa jox rek dërëm ni cel kon it moom bu amee ayib doo ko delloo si aw wala moom kay ñàkk a delloo ndolont ngir ay bi boppam xanaa ilaa nga fiy nattale ilaa an yooji baxaa ndare boo waral nag ko bu ma la ne bii de moom laa la mën a jox nga ni ma indi kon bu amee ayib doo ko delloo si aw wala moom kay ñàkk a delloo ndolont ngir ayib boppam xanaa in uy ndem ràññeef na ko maanaam ilaa an yooji baxaa ndare boo warlu na ko warlu maanaam ba nga dikkee ma ni la warlu naa la am ndolant kon sañ sañ nga boo ca gisee ayib nga delloo si waat waaw kay aw wala moom kay in ayana xanaa ndeem ràññee na ko bu ma la ràññee it ni la ah bii de moom moom laa am nga jël kon su boobaa kon sañatoo koo delloo si taawilaatun am na ci ñetti jàmkat nga ne wa in rad sëriñ bi nee na wa in rad yeen deem nangu ne aji daj ayib bil adala ci teew di naq si wax ci wax wàññi sug mandaxe neen taxawir na sarafa ci kanam danoo sorofante ay dinaar ak ci dërëm ah nga daj ayib ci sa say dinaar wala say dërëm loo ci yëpp kon boo dajee ayib ci say dinaar wala say dërëm waaye nga nangu ci saasa taxawir na saraf aw bi kar saasin loolu dama ne ki ngurdu bi adrin ci teew nga xam ne ba nu sarafante ba noppi daf ci am koo xam ne ki am am na ngurdu kenn ka nangu taxawir na saraf aw radee wala daj wala nangu aji jan ayib biit maa mi ci mottali ga nga xam ne tey ki nga joxe ki joxe lu ayib beneen da nangu na koo mottali koy saawir na saraf abi maxsuusin wala mooy lu ñu jar maanaam tey danoo sarafante ba noppi nekkati say dinaar nee na dama ne mut la xam moo xam ràññee woon na ko la ràññee ko kon saawir na saraf la waaye wa uj bi rapporté na nag àll yi ci mottali googe ilam yu ay ndem ràññeewu ko bu fekkee nag waa ji yow mi joxe woon lu ayib ràññeewoo woon say dinaar su boobaa kon nag da nga dañ lay forcé nga mottali wayen taala leen yàgg na gannaaw ba ñu gisee ayib ji ak fa nga ko bëgg a mottalee dafa yàgg nu ki def def saraf ndax kon saraf nanguwul yàgg mu ne kaan xaama ne ki taxaw na moom aji daj ayib bii ci àqam in xaama dem taxaw na aji daj ayib bii ci àqam foofu la wax bi doon tere mu di leen ne leen ci maanaam siri gi ke naqateen addi ni ko wàññi kub lim danoo sarafante ba noppi am ci koo xam ni sab lim bañ la war na jox manqué na ni ki fukki dinaar la ma jox la juróom-ñeent dañuy firi saraf sa saraf nanguwul loolu mu ne waa jaam yàlla mu ayenumaa lu ñu ràññee teew goo xam ni ko sa jareef na ko kasaalika dañ koy def ni ki naqsul adab tey dama laa sarafante keeguñu ràññee yàlla dogal nga fekk ci ñu jar ko ndax dañ koy def ni ki naqsul adab te kon dañ koy firi aw ya joosu wala dana dagan fii ci keeguñu ràññee albadul wat su ma nangoo indi geneen keegu dara sikul nga delloo ma googu wér na tara dun am nañ ci deng deng nga ne war si ma ko def ci firi saraf paska dinaa ne gën jaa ndaare dinaar la ñuy firi maanaam bu dërëmu juróom bu juróomi dërëm yàqoo ñu firi dinaaru juróom bu fukk yàqoo ñu firi dinaaru fukk sëriñ bi nee na ilaan yata pàkkalu dinaar gën jaa ndaare dinaar la ñuy firi ilaan yata daaw ndare boo jéggi na ko kon pàkk bu ñu gën a dem ñu dem bu gën a màgg ñu ci moom waaye laal jëme duñu firi saraf sa lépp mu ne waa jàmm yàlla wala leen san noonu la ñuy def bu saraf yàqoo ci dërëm ya ñu firi dinaar bu tolloo dërëm ya yàqu wala la ñuy sànni donte duñu likkuli dinaar yi ñel bépp dinaar adadun ab lim ca topp donte néewuñu dinaar bu nekk nangam a koy wecc du tee noonu la ñuy def am moom kay balañ koo def noonu dañuy fekk dinaar bu ne ñu ne nangam dinaar bi juróom bii fukk kon lu yàqu ci xaj bu ñu firi dinaar bu tolloog moom te dina am nañ ci dénk dénk mu ne waal jàmm yàlla ndax yan fas ko dana firiku li sikkatin ci sikka alaaha gën jàkkawe dégg nga de ndax sikka da ngay firi gën jàkkawe te kon su ma la sarafantee jox la dinaar yoo xam ni dafa am sikka gu kawe ak sikka gu suufe bu amee lu yàqu ci xaalis ba buñ dikkee gi gën a kawe nga may jox al jami wala saraf lépp la ñuy firi ndax kenn du nangoo féeteeg ba gën a suufe xaw laa ne am na ñaari wax wasurita sarteef na lil badil ñeen ko ñu wat jin suñ xeet suñu sarafantee ba noppi kenn ci nun gis ci keem keew moroom ma lu yàqu na moroom ma indi xeetu xaalis bu xeetu kee googa teg waaye watajul ak gaawe yow mi nga xam ne da nga maa jox lu yàqu na nga indi lu mel ne la nga indi woon bu njëkk sa na nga ko gaawe nga ne wala turikandeen yayeef na waxee nun lu ñu ràññee su ko loo xam ne si kaaleef na ko keeguñu ràññee guñu si kaal ba di mu farak ni gannaaw teqalikoo danoo sarafante nga indil ma keeguñu ràññee nu teqalikoo ba noppi ñu yey ko ci sama loxo nu ki def def saraf sa kanam aw tóoni wala gannaaw yàgg nu ki def def saraf sa aw mosoo xin wala lu ñu tëgg mut la xam moo xam ràññee nañ ko wala ràññeewuñu ko da nga maa sarafante keeguñu tëgg ba nga génnee rek ñu ñëw nangu ko ci sama loxo nu ki def def saraf sa wa ilaa ndem nga xam ne yàggul nag saxal war na saraf sa da nga maa sarafante keeguñu si kaal da fi nga toogee rek nit ñëw yey ko nga ni mën na maa indi geneen saraf sa wér na mu ne waaw jaam yàlla barab bu wéruk saraf sa boo xamee ni yàggul xanaa intrada yaa ndem nangu leen na ñoom ñaar da ngay d'accord ma d'accord te kon su boobaa ku bañ kenn du la forcé am moom kay de saraf sa wér na su fekkee yàggul moo xam nangu leen nañ te kon wala nangu leen toon te kon ku bañ ñu forcé la saraf am nañ ci dengi dengi boo nangoo indi geneen rek ku bañ dañ lay forcé nga ne wali mustayixi ñeel aji yey saraf te jaasutu ak wéelam ibna ñu xubiri ndem solo ko woon almustarifu aji sàkku jaa wecci ko maanaam tey sa doom dafa fukki say dinaar dem marché dem wecc ko ko su la neexee boo ñëwee fekk fa mu koy wecc ko nga ni ko wéer naa ko saraf sa wér na wax boobu yem foofu mu ne ba jaa sa dagan la mu xalaa jaay lu ñu xoobe wurus ak xaalis bi addi naq day ni jënd ci kenn ci jënd kenn ci ñaari kay mbar bi dañ koo xoobe wurus wala jaasi bi dagan na nga jaay ko jënde kenn ci ñaari kay ca kanam tuuti wayen soo ban donte mbalaan la moo xam ne yëkkati jógana génn mi ngi ci moom wurus wa in sulika neem réew def na ko fekk mbalaani buur yu jëkk yi dañ ci daan xoob ay butumi wurus dagan na nga jaay ko bi addi naq day ni ci sartu kaay la nag in ubbi ndem dagan def na ko mel ne mbalaanum jigéen moom mën naa am butumi wurus nañ ko daganal mooy sàtt bu njëkk ba sàtt ñaari wa sumira te dana kese sàtt ñetteel ba wajula te gaayeef ko maanaam njëgg nañ koy gaawe kenn du ko yeexe ndax dafa am saraf ci biir mooy lañ ko xoob comme kee la buñ koy jënde kee saraf la mut la xam dégg nga dem moo xam wurus la wala xaalis la tappat la ca wala du ca tappat nga ne wa dagan la jaay lu ñu xoobe wurus ak xaalis bi sin fii jënd xeet wa in kaanan dem nekk na sulus a di ci mat sulus nga xam ne tey jaas ji da nga koo ponke wurus dagan na nga jaayee ko wurus waaye na fekk nag ponk ba tolloog sulusu njëgu jaasi ja lépp bu ñu jaasi juróom benn fukk lay jaar ponk ba nay ñaar fukk dong mu ne waa jaamu yàlla ndax loolu xayma jooju dañ koy seet maanaam sulus boobu dañ koy seet bil was bil xëyma ca xëyma ja ay bil was ni wala ca maan xema la ñuy seet xilaaful am nañ ci wuti ah bu le was su fekkee man na xema kaaful ñaar fukk la jaay si juróom benn fukk la war a jàpp tonk bi liñ ci xoob ci wurus wala xaalis di ñaar fukk yaa sama dagan wali saa bu ñu seetee siyaaxal gi nag ëpp na man na xem ñaar fukk xanaa fanweer la laa du dagan kon nag wayin uleen den te kaay la fi bii maa ci wurus ak xaalis la ma gis dëgganul jaayee bi aa yi maa jënd kenn ci ñoom ñaar ilaa taban dana ba toppat na ak jofara mbar ma masala moom rek la saddali lépp lu ñu xoobi wurus ak xaalis nga di ko jaay di ko jënd kenn ci ñoom na fekk lañ ca xoob ci wurus ak xaalis tolloog sulusu loola maanaam sulusu njëgga lépp bu mu ko ëpp wax boobu yem foofu mu ne wa jaasa dagan na bu baadaltu xalil wattalante lu néew almadudu lu ñu lim doona sabatin loo xam yées na juróom-ñaar daaw sana ci lu gën a màndaxe min haa ci moom bi sudusin ci sudus sudusin topp sudus da ngaa am dinaar yoo xam ne juróom benn dinaar la yàlla dogal maanaam matul juróom-ñaar te it jën naa di samay dinaar sudus wala lu ko gën a néew dagan nañu wattalante ma jox la samay dinaar nga jox ma say dinaar jéggale nañu liñ ma ëppalee te mu te te nga xam ni sudus la wala lu ko gën a néew ma ne wala joodu gën jaara sax anka su di gën a wàññeeku moom tamit aji tarawul ci wattalante tey damaa yor wurus wu rafet waaye dafa woyof nga yor wurus wu ñaaw te diis daganul nuy wattalante ndax kon bu ma la nee maa la gën a rafet na ngeen ma maa la gën a diis la te dafa xaddam aw ajoodu wala gën jaara sax sikka tan ci sikka di gën a wàññeeku ba tey moom tamit aji tarawul da ngaa sikka ma sikka waaye sama sikka moo gën a rafet ci sikka waaye sa sikka moo gën a diis daganul ñuy ñuy wattalante ndax kon loolu fa li muñ jaani béy la su ma la nee maa la gën a diis la nga ne ma maa la gën a rafet maa la gën a rafet la ngeen ma maa la gën a diis wa ilaa ndéem gën jaara sax gën ta wàññiku gën jaara sax gën ta wàññiku kon jaasa mu dagan la ndax kooku kenn ka rek moo gën le jéggale nañu loolu wa mu raatal ay nin dagan na di leen tekkee di mis di jënd kemba bi seen jëtin ci po maanaam nga indi sa keema indi sama keenu peese aw ki fa tey ne wala ñaari balaas ya nga peese kilo jox ma mooy po ki fa tey ne mooy ma teg ca balaas bee nga teg ca place bee da nga day ñu kii kooku dagan na loolu mu yos naa doonte man ne xamu leen ñoom ñaar àllal jëy ci wax jëgën a lëng wayen kaana dem nekk la aaduma kenn ñoom ñaar ajoo di gën a rafet donte nekkoon na ahaduma kenn ñaar ajoo di gën a rafet ñu tënke mumin dama yor dinaari muhammad yooyu kese nga yor dinaari mesre kese dagal na nu peesente kenn ku ne jox sa morom aw ba doo wala lennam ajoo di gën a rafet lenn kese def ñu tënke mumin min dama yor dinaari muhammad yooyu ak dinaari misra nga yor dinaari misra kese dagal na nu peesente ma peese kilo jox la nga peese kilo jox ma su ma la nee sama dinaari muhammad yooyu moo gën say misra yi da nga naan cell da nga de waaye la ajoo la addinaa waxuma gën jaa suufe wa ajoo ak gën a rafet ka ca def yool ci la gën a ka ca diggante ba damaa yor dinaar yu gën a ñaaw ak dinaar yu gën a rafet yow nga yor dinaar yu digg doomu dagal nuy ratalante ñu tënke mu zammin damaa yor dinaar yi muhammad yi moo gën a rafet ci dinaar yi yow nga yor dinaar yi sàkkar ji moo ak dinaar yi sàkkar ji ñaar yëpp laa boole muhammad yi ak sàkkar ji yow nga yor dinaar yi misra yi kese kon nag daganul nuy ratalante ndax bu ma la nee sama muhammad yi moo gën sa misra yi nga ne ma sama misra yi gën sa sàkkar ji yi nga ne wala soo la gën a bari ci borom xam-xam yi ala taali sikka nekk nañ ci taali sikka gi kat jodit ni ki rafet nee ñu wulus wu ñu sikkaal te da nga de te rafetul nanguwuñu nga di ko reetalante ak wurus wu rafet te kenn sikaalu ko was dafa xadam wa siyaaxat siyaaxal ga it dañ koy taawil ka si ka jawdet ni ki rafet ni ki damaa yor wurus wu rafet wuñu sikaalu nga yor wuñu ñaaw wuñu wuñu wuñu siyaaxal wala ñu wuñu sikka dagan ñu reetalante nga ni wa max soo san araam na lu ñu jar bi mis lii dagan na jaay lu ñu jar bi mis lii jënd kemb dégg nga de ni ki tey damaa dinaa dañu jar ñu sarafante ko xaalis bu ñu jar dagan na wa dagan na jaay la ñu jar bi xaalis ñu jënd lu sell waaye wala la gën a fen fi mu jële ko si wute ba xilaaf foofu mooy lu wuteeg loolu am nañu daganut wa dagan na jaay lu ñu jar li man ñeel koo xam ne yëkk suroo dina ko toj maanaam dama yor dinaar yi ñu jar dagan na ma jaay ko tegit mu toj ko aw laa yokk su wala du ko jar bii ci moom dagan na nga ne bokk rek ci def na li man ñeel koo xam ne di jaay lu ñu jar li man ñeel koo xam ne laa yoo mënu defu ko wóolu ndax buñ ko ko joxaatee mu di ko jar kon kooku sim nañ ko su tabbet wàcc fu ko def na ko firi ñu mën ci koo xam ne yokk si dana ko jar ilaan yëfatu ndale boo faat na su fekkee doo faat ci loxoom nag ñu bàyyi firi ka mu ne wax jàmm yàlla su boobaa nag yow mi ko jaay ki koy jaraat ba mu yóbbu ko ndax yem li ko dana moom njëgg aw yàq sax doxu wala day sarxe bil jami ci mbooleem njëgg lépp aw bi saay di wala ci la ëpp alaa man ci koo xam ne laa yàq su du ko jar ki nga xam ne boo ko ko jaayoon du ko jar la la ko koy jaraat yokk lam ci ëppalee nga xam ne tëgg bi nga ko jaay moom ab naa féq la daf koy yokkaat di ko jaraat lam lam njëgg lam ko ëppal loola ngay sarxe waaye yaa moom la ca baax ak wàllum am na ci ñetti wax waxa daaw xa din dagan na fayug lépp bi mu saawin ci lëf dul aj yemoo ci xeet ak kemag melo da ngaa leb dara waxtu wa dagan na fay ko ci xeet ak kemag melo dafa ne wa afdala ak lu gën si fatan si melo dagal na nga leb ba waxtu wa jot nga fay lu gën a baax ci melo wayen àlla ndeem ay na àlla ja lu dig ba dagal na bàqale ci lu gën a néew si fatan ci melo waxadan ak ci kem su fekkee ki ngay fay ñëw na andil ko lu gën a néew melo wala lu gën a néew kem ni ki tey nga leb bari ko fay juróom ñett fukki kilo mu d'accord loolu dagal na ndax rafet fay win la waaye laa seet waxul gën jaadoolee ko adda ci lim ni ki nga leb fukk dem fay fukk ak ñaar loolu daganul aw was na wala ci màndaxe ni ki nga leb bërigo fay bërigo ñaar fukki lu daganul ilaa kaw ci aani misaan dina nangal balaas bi la waa ji lebal moom da doon da da doon da doon balaas yow nga dikk di daaneel ngir bëgg xolam sedd dagan na aw daara wala waleel fadlu nga ne la min jaani bay tukkee ci ñaari wàll ya kooku moom itam daganul boo déggee daara fadlu min jaani bay ni ni ki tey da nga maa lebal juróom fukki dinaar yi yasidiya ma fay la juróom-ñeenti dinaar yi muhammadiya su ma la nee man sama wursi wee gën rafet nga ne ma man tam fukk laa la joxoon nga ne ma sama ma di njëgalu ñu jaay min ay nin moom kee la kasaalika nekk wante xadaaw xarim nga dagal na fay lu jëkk digg ba lu lu lu yemoo ci xeet ak kenn nelaw ni ki waaj jaay na la fasan ci ñaar fukki junni yoon may na la ngeen appoo weer bu amee fukki fan ak juróom nga ñëw fay ko boo jaasa da nga la ci samanoon maddihu daak tala ci lu gën a bari ni ki tey nga ledo nga lebaloon ko fas mu lebaloon la fas ci ñaar fukki junni nga di ko fay sa xol sedd nga fay ko ñaar fukki junni ak ñaar wa daara wa dawlu na fa lu ngëneel bi sikkatin ci sikka wa jëw detil ak rafet waa ji daf laa lebal wurus wu rafet nga dem fay ko wurus wu ñu sikka te rafetulul te rafetul daganul ndax kon boo ko ne wurus wu ñu sikkaan laa la fayee mun la wama la lebaloon lu gën a rafet wa siyaaxal ak siyaaxal wa jëw detil ak rafet ni ki waaj gaa defal wurus wu rafet nga fay ko siyaaxal te rafetul kooku moom itam daganul wa in batara nem yàqu na fuloo suñu koppar fal mis lu war na kemba ni ki da nga maa lebaloon ay koppar yàlla dogal mu yàqu bu ma lay fay naa la fay kemba sëriñ bi nee na aw dimat wala ñaateef ko kemba war na fal xiimat war na xayma ja ni ki tey da nga maa lebaloon koppar yàlla dogal ñu dem ba mu xewi kon it nañ seet luy xayma ja waxtu ci may istiaq ci waxtu booloo yeega wala adami ak waxtu ñàkk wa ni ki tey koo xam ne dañ laa ameeloon ab junni ci jamonoy 1950 suñu jekkee ba léegi dañu seet junni 1950 amatul ñu seet luy xaymaam léegi waxtu bi dafa def na sarxe dinaa ci loo xam ne xut sa jarees na ko wala kas la doonte bari woon na ni ki ku jël saw di ko jar dañuy nangu lépp sarxe ilaan ya kon rek boo nekk ne istira di jënd ko kasaalika naka noonu muy lu ñu jar el kon nag su boobaa ñu bàyyi ko ilal alima ndara aji xam jarga mu jënd ko li yebbi woon gën a jaay ko kon it ñu nangu ko sarxe ka bàlli xumuri ni ki tooyal ay musóor bi nisaabin ci maanaam ay gom dégg nga de dem di ko jaay ngir mu niru lu bees dañ koy nangu sarxe wasat ci saay bi ngir wurus jëy din wu ñaaw wu rafet bi la din di ko jaxasee wu ñaaw des na ko nangu sarxe wa naf ki leemin ak wal yàpp ngir mu niru wu duuf kooku des na ko sarxe rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ariel